jëf université voilà du parti. Mhm. Euh, moo nekk ni euh, kii kaw aussi suñu benn responsable la voilà ni nga ko gisee booba jeune ci fin vingtaine vingt huit def naa lay war a am vingt neuf jëm trente. Mhm. ak ni mel waaw donc yàgg naa yëngu ci affaire tout ce qui lépp loo xam ne li daal ci wàllu ni suñu réew di doxee euh, daf ma doon intéressé. alors euh, bu ñuy wax jamono jooju hmm. euh, parti socialiste dafa nekkoon ku am doole nekk ci pouvoir bi yéen ngeen nekk ci fi nga xamante ne moom mooy ànd jëf di militer nag ci ay conditions yu metti yu yu yu difficile moment boobu qu'est-ce qui vous faisait tenir conviction conviction man moom laa mos dafa yàgg ci man parce que xam nga li ñuy wax 30 ans ba tey daanaka <laughs> voilà ma am at yi ma am. Mm-hmm. Euh, conviction ma mos soxal te booba bon am naa taxawaay bi am naa xam-xam bi su ma demoon parti socialiste def naa naa fa def carrière mu dee carrière rek laa doon wut ak luy sama intérêt bopp mais looloo lay looloo lay jàpp am na benn maire boo xam ne maireu APR la euh, xam naa ne dina xàmme boppam mhm. moom bokkoon nañ ci mouvement yi euh, moom dañ ko jàpp mu def un an ci ci ci ci prison bi moom dañ ko emprisonné c'est peut-être le seul maire de la l'APR bu am ce parcours la fa la defee concours am ca biir prison ba de ca biir prison ba la defee mhm. concours am ba nekk inspecteur de la jeunesse ba def carrière am après ba mu génnee ñu affecté ko pour bu diir aussi que sax même ni état daan comporté woo amoon na ci aussi vraiment lu ñu mën a saluer parce que nga jël opposant bu jeune yóbbu ko ci prison tëj ko fa un an pour activité subversive tojul yàqul mais temps boobu noonu la woon pour mhm. wax la rek ni mu méttee ca prison ba lañ ko escorté bu def def defi concours am réussir concours ba génn bi mu paree penam ñu affecté ko quand même voilà li may wax euh, voilà ku mel ni euh, voilà ministre Mbagnick Mbagnick Ndiaye xam na li may wax. parce benn ci suñu maire yi du Mbagnick Ndiaye ci boppam. parce que Mbagnick Ndiaye nekkoon na chef kooku. Hmm, voilà voilà c' est un de un des maires de un des maires de la paire juste pour wax la ni ni ni jamono jooju euh, ne militantisme yombuloon dañ da ngay génn grève. voilà ñu jëflanteeg yow ci yu méttee méttee méttee méttee métti ah mm-hmm. euh, c'était pas facile voilà du woon du yombuloon par exemple man après bi ma ñëwee nekk sot Sotrac mooy mooy Dakar Dem Dikk mm-hmm. dañ ma fa licencier ma di ma licencier de ah <laughs> <laughs> euh, ndax bi ma ñëwee euh, dama ñëw fekk syndicat CNTS moo amoon mooy syndicat bi bokk ci PS donc mm. ci bokk ci le pouvoir d'accord moo nag li PS di def man mu bokk ci syndicat bon entre parenthèses d'opposition. Mhm. Euh, central boobu nag euh, Mbaye Guèye moo ko jiite woon moom it mu ngi may dégg maa ngi koy nuyu. yal na yàlla bàyyi ko fi aussi lu yàgg. Euh, donc ma nekk la seule cadre d'ailleurs ci centrale voilà. d'opposition bi bien sur après nag bi ñuy def les réajustements ñu boole ñu ñun <laughs> ñun ñëpp dàq <laughs> licencié licenciement abusif d'ailleurs boo xam ne inspection du travail euh, condamné woon na ko. Mhm. ndeysaan li ci metti mooy boobu xale laa xam j'étais jeune. après man uti naa beneen liggéey ba mujj dem nekk fonctionnaire international. international mais bëri na ci ñoo xam ne seen seen famille noonu la yàqoo. parce mhm. que mag lañu woon amaatuñu liggéey. Euh, voilà donc injustice euh, yàgg na fi. Mhm. dossier ba traîné ay presque vingt cinq ans kenn vidéo ko. Mhm. voilà am na suma benn collègue aussi xam naa mu ngi seetaan ñu naan ko Mbodj maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. voilà moom mu ngi mbaaw ci groupe boobu la bokkoon groupe des cadres mais après nag ci la continuer liggéey pour euh, l'ASWEF ONG et ensuite. Euh, Euh, am une carrière internationale. d'accord voilà euh, mais licenciement boobu boobu c'était pour voilà pour activité <laughs> d'opposition rek donc. Euh, d'accord donc ñu seppi ñu sànni. jamono yooyu 90 di wàcc pour 2000 nga dund loolu benn parenthèse rek la ak moment bi boo ko comparé. qu'est-ce que cela vous fait léegi léegi il faut reconnaître que léegi liberté démocratique yi avancé nañu lu bare bare. bien que ñu ngi régressé ci li may gis. parce que léegi nii rek euh, ña demoon di manifester ci bundu ambassade euh, Tunisie ci le traitement bi ñuy def suñu suñu mbokk yi en Tunisie euh, ñu jël leen yóbbu commissariat mm-hmm. dont mon ami le l'honorable député Guy Marius mm-hmm. donc loolu daf may fàttali la amoon ca jamono yu njëkk ya defoon nañ ne dépassé nañ ko defoon nañ Sénégal dépassé na loolu taxaw ci bundu ambassade dikk di di di ñaxtu lu tax der yu suñu suñu mbokk africains yi ñu leen di traité ni leen di traité. Mhm. ak propos racistes yi nga xam ne président Tunisie bi am na ko. voilà taxaw di manifester rek ñu gàddu la yóbbu commissariat yooyu dafa dafa di méthode yoo xam ne yi amatu vraiment euh, dafa xewi waratu gëmoon nañ ne dinañ dootul loolu dootul amati daal donc euh, bien que démocratie bi avancé na bu baax a baax mais li may ragal mooy di gis ay recul li ma koy gisee ñuy tëj ñuy suspendre ay ay télévision Euh, voilà arrêté ay jeunes ak yu ni mel mhm. euh, loolu moom euh, vraiment dama ciy am ay inquiétude parce que loolu ci année quatre-vingt-dix yi lañ ko daan gis defoon nañ ne nag après maintenant c'est révolu loolu jeex